ak sama jumeau bi sama xarit sama seex sama doomu ndey. sa avocat. sama avocat. kan ñëw ah waaw waaw soxna altine soxna altine macha allah. jaañ jaañ jaañ jaañ jaañ. ah jaañ yal na yàlla defal la jàmm. tas ak nag monsieur le maire bu Guédiawaye ñëw. waaw kii mooy monsieur le maire bu ah, Guédiawaye. macha allah macha allah. madame Diop nuyul ñu ko. waaw tey tey daal mën ngeen. mbay toogal mbay toogal ñu eggali. waaw toogal ñu eggali waaw waaw. waaw accompagné ko kontaan nañu waay. manam Diop ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaye ne ko ah. merci beaucoup kontaan ci moom. sama mag mère la sama jumeau mère la. sama xarit mère la. waa Ndiagne jóob xanaa Ndiagne. waaw moom Ndiagne day moom vraiment moom dafa mérité. <laughs> ndeysaan dafa ah, ñu félicité ko ah waaw dafa ñu félicité ko. parce que moom. Mhm. vraiment même bu dee sax. Mhm. dafa nekk ci pouvoir bi tamit. Mhm. ñëpp gis nañu. ci xeex bi mu nekkoon. Mhm. waaw galgal yeeg ñoom seen yoon. waaw kay mais yàlla moom alaaji. moo ne ci njàmbaarte gu ma sëkk. waaw gannaaw bu ñu nuyoo ñëpp daal. ci mhm. xamal ñëpp rek na yàlla mooy joxe nguur. dëgg la. waaw kenn mhm. daal mel na ni alaaji dee rek. démb dama dem ci Masor Moussa boobu gendarmerie magam dafa làqu démb. wallaay waaw ñu dem ci euh, ñu dem ci enterment bi. ndeysaan fekk fa euh, colonel. Euh, Mbengue mi nekkoon fii section de recherche. Mm. ndeysaan Mbengue waaw fekk fa colonel Ndaw colonel Ndaw mi nekkoon gendarmerie Abdoul Aziz Ndaw mm-hmm. waaw yu bari mais ñu ngi mm-hmm. dégg noonu ndeysaan ki doon jottali waxu imam bi mm-hmm. mu ne kenn yaafuusul alaaji ba tax rek yàlla daal xool na ne yaafuus mu ne yow la rey dëgg la kenn tamit amul doole wala kattan wala wala dëgër wala naan dama am fulla ak fayda moo tax borom bi bàyyi ma fi waaw bu nguur tam noonu rek la. dëgg la. yàgg nañ fee nettali histoire yonent yàlla Moussa nit ñi di rey. wallaahi. waaye yonent yàlla Yuusufa tamit. gis nga ko. jóge ci kaso. buur bi am lu mu gént. waaw bu ko defee nag expliquer buur bi géntam googu bu ñu neexee ñu ne looloo ko soppi def ko buur. yàlla moom mooy xool lu ko neex. ko mm-hmm. dogal ci jàmm. Mm-hmm. waaw Njang Diom nag ñu ngi koy féliciter. Mm-hmm. di féliciter tous les candidats. pouvoir comme opposition. ñi nga xam ne dañoo am ak ñi amul ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mhm. xam ne rek loolu moom yàlla moom moom moo ko dogal mhm. waaw dogal ci jaam ji rek ñu xam ne noonu waaw man nag moom alaaji waaw waaw ci kër gi nag ginnaaw waajur yi nga xam ne mhm. keroog ba mbir mi amee dem naa siyaare leen muy suma waajuru góor ak suma waajuru jigéen ci seeni xablu waaw ñaanal leen yàlla yàlla yokk seenug leer yàlla yàlla nangu xare leen àjjana waaye ñaanal tam képp koo xam ne rek Euh, da nekkoon ci mbir mi. ci diggante bi. Mm-hmm. nga làqu. mu mel ni soxna Sadiya madame Aydara. Mm-hmm. fii ci HLM Paris waaw sonnoon ci mbir mi lool. waaw bu defee ak bii nga ja sama yaay. waaw bi laay ndeysaan. keroog bi mbir mi amee xol ba sedd na waaw waaw waaw mag ja daa jooy keroog. liggéey na ci waaw waaw penda penda ja daa jooy. aywa liggéey na waay te ku nekkoon doo ko fekke du ko gëm. waaw liggéey na ci yàlla moom mbiram moom xam nga moom. waaw bu ko defee nag sant tamit. sant rek. coalition bi nga xam ne ñoo ñu porté woon. muy waa yeewee askan wi. Mhm. sant leen gërëm leen nag alaaji. Mhm. parce que wax naa ko TFM. nee naa leen man mouvement dong laa yor. ñoom ñu yor parti. Mhm. dégg nga waaw bu ko defee nag ñu jël la jiital la. gars yi dàqoo leen jàng. ëppoo leen expérience. ëppoo leen i magoo leen. ñu yor parti nga yor mouvement. ñu ne la kaa ñu jiital la. kon ñooñu kenn mënu leen a fay. mooy coalition bi. waaye ca bopp ba ca géejawaay nag. di El Hadj Malick Gakou. El Hadj Malick Gakou. waaw waaw El Hadj dem na ca. ay otoom dem ca. Mhm. coonoom xelam xelam. Mhm. waaw ko defee. moom ca fajar la xamal waa parti ne leen ñun amuñu candidat ville. Mm-hmm. Ahmed mooy suñu candidat. Mm-hmm. waaw bu ko defee nag ñu sant ñoom Khalifa Sall ak sant ñëpp. Mm-hmm. waaye sant tamit. waa kër gi ma toog. di dee média. waaw cooli nag ñoo te dee média nag buñ ko tuddee alaaji. dañoo jiital kilifa gi. waaw ndax xëy na moom mii fi dajale. di Bougane Gueye Dany ma koy delloo njukkal. ko sant. di ko gërëm bu wér. position politique alaaji dama ne Mame Mbaye Niang. baayam. waaw bokkul bennoo bokk yaakaar. waaw boppam. waaw. te doom jaa nga bennoo. kere dem na sax ci liste yi Sénégal 35. waaw ma ne ñun suñu tëddee liste Dakar. waaw Barthélémy Dias. waaw parti socialiste na yeewi askan wi baayam ma nga bennoo bokk yaakaar. waaw Ndella Madior Diouf. Mhm. baayam ma nga bennoo ma nga wàllu Sénégal ci opposition. waaw bu ko defee nag. Mm-hmm. comme que ñooñu moom ñoo fàqee ci. ñi mm-hmm. leen indi. Mm-hmm. te bokkuñ fañ ne. waaw waxuntuma la ak leneen. waaye nag. li ma lii ak moom dafa mujj dem nag ba xaw a sax nag laal deret nag. waaw kon politique du ko yàq. ba tax nag lay dëgg ma sant ko nag. waaw sant ko nag. sant ko nag alaaji nag. lay de sant lay sant nag bugaan ngay dani nag. waaye lii rafet na waay rafet na waay. sant nag bugaan ngay dani fii la sant nag bugaan ngay dani nag parce que. rajo bi ak télé bi fii lay liggéey. Mhm. dañ naan Ameth soxlawul moom ay affiche koñ boo jaar nit ñi ne waa koñ bee. Mhm. kaay leen Ameth yegsi na. Ameth na jaaruma ci benn koñ bañ ne. waa mais gars kii mooy kan ci gars yi. ka bëgg ci candidat ah, yi bi nag Mambay. Mhm. joué na ci nag. télévision bi dama ne joué na ci. TFM laa mhm. ubbee télé. Mhm. waaye fii nag ci dëgg-dëgg nag. Mhm. laa def lu ëpp fukki atu yàlla. wallaahi 2011 laa fi tàmbali. ñu tàmbali nag bi dara nekkul dara. quotidien amu fi. télé amu fi. site amu fi. mais num rajo fi ma fekk leen fi yéen ak ñoom Mansour. benn rajo ak ñoom Sumer. Tundung. waaw benn rajo fi nekkoon waaw ñuy ba lépp nag fekkuñu fi. waaw kon ndam li. des médias daf ci am ci pourcentage yi daf ci am. waaw waaw candidat yeewi askan wi géejawaay. Mhm. Mhm. des médias ko jaay. te des médias googu nag ku ko jiite. saranga xol yu bëri. waaw la tudd. ngay maam góor. maa ngi koy sant di ko gërëm. ko ñaanal yàlla. yàlla gën koo jëmale ay ak ay soxnaam. Mhm. yàlla bàyyi ko fi mu gudd fan. amiin yaa rabbal aalamiin loolu Guèye fekkee njëriñu njabootam gi yëpp. amiin yaa rabbal aalamiin barki yonent bi alayhi salaam. amiin keroog ba ma gañee waaw na ma seeti jee sama waajur yi. Mhm. asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum. Eh. Cheikh Saare Mbiri Cheikh Saare Mbiri. nekk moom Aïcha. Eh. nekkatul mère imagination wala virtuelle de. Eh. mère dëggantaan vrai. pire dégg nga loolu alaaji. waaw waaw bu ko defee nag. Mhm. ci tukki lañ ñëwoon rek. ñëw barki démb rek ñëw fi tey. Mhm. waaye moom. ci kilifa yi nga xam ni. dañ leen a war a dem visiter. visiter am na ñoo xam ne ñoom ñooy ñëw. di la njukkeel ak di la di la di la di la nuyu. ak di la sargal. ak ñoo xam ne nag yaa war a dem ci ñoom nag. maa ngi waaw am na ñoo xam ne nag yaa war a dem ci ñoom foofu. waaw te moom nag ci ñooñu nga xam ne ñun dañ faa war a dem. ci lañu bokk dëgg dëgg fa yàlla ci lañ ci la bokk. Mhm. kon moom Guèye waaw dama koo jaglelee. ndam li. Mhm. ni ma waxee ne. Mhm. waaye yeewi askan wi xaw ma ku ñu déjee ndam liggéey géejawaay mais man laa wax man personnellement man. waaw man Alaaji Malick Gakou laa ko déjee. Mm-hmm. waaye noonu ma ko ko déjee it. Mm-hmm. war naa koo mën a tamit déjee Bougane Gueye Dany ñi mm-hmm. ñu nekk ñoom ñaar ñëpp. samay mag nekk sumay xarit. waaw ñu sant lool. waaw sant lool gërëm rek sant rek. sant rek sant rek Alaaji sant. sant tamit nag suñu sëriñ ba suñu xarit ba sëñ Abdou Karim. lay ndeysaan keroog dañoo def délégation nag dem fa. après kii. avant. avant ah, waaw waaw waaw waaw boobu de. toog nga toog fa woo ma. yaa ma woo yaa ma woo ma ma nga fa. wallaahi Mbacke Ba lay sa. Mhm. waaw lam fa waxit jarul sax mu ci jaaraat ndax ñoom. Mhm. ñoom askan wi yëpp lañ fi nekkal. ñoom ay régulateurs sociaux lañu. ñoom dem ci ñoom sax naan leen. ñaanal ma ma gañe wala ñaanal di wàcc ma yéeg. Mhm. loolu sax ñun waruñu. waa da ngay dem tàllal sa loxo rek la. waaye xam naa ne daal lam ñu waxoon daal ca la ne ba tey Mbàkke daal lees. wallaay naa la ko wax. Ah, koy ñaanal yàlla nag ñaanaat nañ fa ndigal nag comme nañ ñaanee woon ndigal pour dellu fa. waaw te wax na ko jëwriñ maam làmp waaw bu ko defee jàppalaat nañu dat. macha allah waaw samedi bii di ñëw dañu dafa am ziar général. waaw waaye euh, ginnaaw ziar général ba daal la ñu wutalaat bis. pour ñu pour ñu dem fa. dem fa Seex. waaw sant naa la lool. sant naa la nag. xam nga ñi fi liggéey danoo bari. waaw. ñu liggéey kër gi bari nañu. Mm-hmm. <laughs> sant nañ ñëpp commencé ko ca booba mm-hmm. waaye day am ay nit yu jël seen téléphone bokk ci man. Mm-hmm. ne ma sa waay. woowal Mansour. yaa neen yaa gore. sa woowal Cheikh Sarr. ndeysaan. sa waay sa doom jàng ciy jàpp de ma ne man dee déglootuma rajo. walaay taloo ko. sa waay woowal Chumère. woote na fi ñetti yoon juloo. loolu nag bu mbooloo amee. ay nit ñoo xamante ni dañoo bokk ci yow naan la wóowal diw wool diw wool diw. Mm-hmm. waa diw moomu ci dëgg-dëgg nag defaral na la. Mm-hmm. te alaaji. Mm-hmm. Cheikh Sarr mii nag li ñu waxoon rek la noo waxaat ci moom. góor a ngi garmee ngi nii. la ma sama yaay waree saar rek yéen ay waalu waalo ngeen. yéen nii rek ngeen mën a mel. baax boo leen téye doo leen bàyyi. waaw parce que liggéeyu presse moom média ñëpp xam nañ nu mu demee. Mhm. léegi-léegi ay kii ak yu. waaw ci ñoo ànd waaye ci dëgg dëgg daal. ñoo yéen ñii ma nekkal fii daal. Mhm. waaw sant nañ leen de waa géej waaye sant nañ leen. Mhm. lu ñu xewlee. ñëw ngeen fa ba yow barki démb alaaji yaa fa yaa fa mujjee. ah man kat Mambay mi ak Yaas mi ci suñu congrès ba. ca démb ja ñoo ñëw ñëwaat ca congrès ba. Ah. waaw waaye loolu yëpp nag. kilifa gi ñu fi dajale la rek. wallaahi moom bugaan gee dani la rek nag. coow li coow moom la nag. Ah, waaw lay dëgg la moom la moom la moom daal moom daal sant naa ko. la waa sant naa ko ak. waaw waaw. Eh, président. allo. waa président. oui oui euh, Dóor. waaw mais président yow dégg ni ma wooyee. yow dégg ni ma wooyee. Ah. mais président maa ngi lay waaw waaw sant bu baax maa ngi lay sant bu baax Dóor Dóor na nga def. <laughs> Dóor Dóor. <laughs> Eh, même téléphone loolu la ci bind ah. Ah, non xam man eh? moom lay Dóor moom. man de man mais am naa deuxième dóor léegi nag. man de parce que léegi comme am na leer bu falu. <laughs> après bu ma dóoree ci yow damay daanu ji man daal ay am nga ñaari affaire la kii dóor la. Uh-huh. kii dóor la kii tës la. man daal man daal li may njëkk a wax man li may njëkk a wax. Uh-huh. alo uh, allo waaw président li may njëkk a wax balaa maa nuyu. Uh-huh. en tout cas tey moom boo yënguwul moom du baax moom. xam nga xam nga li naan la case de Birama brûle. Uh-huh. non non non non non sawaay. instant bi ko ñu amoon yëpp campagne nañ <laughs> waaye duñu ko nangu. waaye mani. Eh, DG. <laughs> DG boobu moom man maa man maa lay làkkal. directeur. ah mais xam nga xam nga lu ma jaaxal. waaw. mais euh, ci revue de presse bi. waaw. mais tey tey troisième mandat dañ koy tere rek nga wax. <laughs> <laughs> mais mais mais wuy ma ah, ah, waaw nga xam nga dem si yàlla dubalees li mu doon def laa bañ a def ko waaw dégg naa ah, bu la dégg naa bu la daanaan ba pare. waaw dañ naan ko waa mais lees lees wàcceel kii mu ne non non ay olof lañ il faut ma xaar photo. wala xaar leen bañ ba pare léegi nag léegi nag man nag photo ba nag laa fa bañ a xaar. photo ba laa bañ a xaar bàyyi noonu rek. man daal fi mu ne waaw mais comme comme comme li waxante rek di nga amee victoire. waaw. Euh, la vie elle est faite de combat. wallaahi. mais yàlla mooy maye. alhamdulilah waaye nit ku nekk sañ nga sabablu. ne lii war naa koo am. suñu borom ñi nga xam ne mooy joxe. Mm. jox na la. yàlla na nga ko muurloo. amiin euh, comme li ma la waxoon keroog rek. Euh, yàlla jox la kattan. teg la ci njub. Mm-hmm. ba li nga bëgg yéene ko. Mm-hmm. nga mën ko sottal pour les populations de Guédiawaye. Mm-hmm. mais boo fàttali ko la ma la wax ak li ma la bind. dama ne la du ci yam. viseel maire. Mhm. am nga ko. Mhm. visé jël député di nga ko am. visé leneen ak leneen. Mhm. nit yow yaay yemale sa bopp mais yàlla du tënk kenn. et loolu euh, moo am solo. et la ma la nit it gis naa ne yaa ngi ci. mooy fexe képp koo xëccoowool. nga tàllal ko loxo. liggéey ak moom parce que lenn dong moo la war intéressé mooy victoire u la ville de Guédiawaye mhm. et bi nga waxee ne da ngay ñëw liggéey mhm. j'ai dit voilà un produit de Bougane mhm. parce que comprendre na ne euh, akuk pal warta doon une fin en soi et li nga wax dafa am solo mhm. ñi ngay xëccool dañu leen fal ñoom mhm. mais yow da nga am liggéey mhm. liggéey boobu nga nekk nga jàpp ko ak sa fukki loxo gëm ko di ko déroulé yal na yàlla def nga am sa yëfi bopp parce que fii nga nekk sax man jàpp naa ne sa yëfi bopp nga ko jàppe parce que nii euh, ko borom téye noonu nga ko téye kon eh, yàlla na borom def yéene yëpp sotti amiin yaa rabbal aalamiin eh, yéen wii yàlla moo mën a woyafal mu woyafalal la ko bu baax euh, je suis très à l'aise d'en parler parce que je sais que euh, fal bi nga xam ne def nañ la ko maire bu Guédiawaye mhm. maire par force <laughs> muy gëm-gëm yàlla sottal ko dafa am lu am solo lu ci am mhm. parce que di nga yegg ci banaliser mhm. pas dans le sens péjoratif mais wan ñi ñuy fal ne leen dañu leen yónni sant leen ngeen war a def donc gënu leen nit ñi ëpp leen dayo nit ñi c'est ëpp leen martaba nit ñi ëpp mmh. leen jàng nit ñi mmh. dañu leen sant mmh. population ñoo leen sant ngeen war a def bu ngeen defee baax na bu ngeen deful am nañu sañ-sañu kenn ku nekk ci ñun fekk leen fa ngeen toog jëli leen fi toog seen place def liggéey bi ñu leen waroon sant kon Euh, esprit ngëm sa bopp boobu nekk ci yow mhm. nañu ko yaatal ba kenn ku nekk mhm. am gëm-gëm googu mhm. mécanicien bi marchand ambulant bi magistrat bi menuisier bi enseignant bi ku ne xam ne danga nga war a participer ci luy defar Sénégal et je crois que loolu yaa ngi ci mhm. yal na la yàlla euh, jàppale yàlla kattanal la ba yéen yi nga am sotti parce que sa victoire victoire mhm. mhm. Ahmed Aidara victoire u D-Média la victoire Ahmed Aidara victoire Bougane Gueye la ay nit mën nañu bokk ndey ak baay duñu bokk euh, benn ëtt wala benn yoon bu ñu jaar mais li am solo mooy li ñu bëgg maak yow yëpp. Mhm. benn bëgg-bëgg bi la. mooy Sénégal mooy lu defar Sénégal. rek kese lu jëme Sénégal ci kanam. kese mhm. lu gi jafe-jafey askan wi. kese te loolu képp ku ci participer man nga ko defal. Mhm. yow la ko defal. sénégalais yi la ko defal. voilà. ah fas fas bu ñu xëyee jox ko ngooñ. ngoon <laughs> ngoon ñu jox ko repas. Eh. dañu ñaari xont yu bokkul la waaye kiy joxe ku ne da ngaa bëgg mu suur rek. Mm-hmm. absolument.